mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun ci rajo Rewmi FM tey nag ñu am ci mbégte gu yaa di ci dalal Mouhamadou Diop nekk deuxième adjoint au maire bu commune bu Biscuiterie ñu gën ko xamee ci turu Ahma Diop ñu ngi lay dalal beneen yoon encore itam ci mbégte gi am di la dalalaat fii ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM monsieur Diop. merci monsieur Mbemba. di la euh, nuyu di nuyu auditeur u mi FM di nuyu boroom kër gi. Mhm. di nuyu sa technicien. Mhm. di ñaanal yàlla na ngeen gën a développé. Mhm. ba nekk seen structure bu gën a mag a mag yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def. amiin jërëjëf euh, monsieur Diop dañ koy dooree rek ci mbas mi ñu ngi wax deuxième vague tey li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus bi ni ki démb rek treize décès ni ki tey juróom benn. mi ngi mel ni deuxième vague bi itam mu ngi commencé di accélérer ci wàll wi ni mel fan ngeen toll tey ci wàllum sensibilisation ci seen commune bu Biscuiterie yi. merci monsieur Mbemba li nga wax euh, ci wàllu sensibilisation bi ñuy ñaan sénégalais yi ak askan wi. Mhm. gën a farlu ndax ñun première vague bi amoon nañ ci ay cas yu bëri. Mhm. mais bi ñu jëlee yenn disposition par le bier du président du maire président commission jeunesse sport et loisirs mhm. ñu koy wax Saliou Gueye mhm. convoqué les ASC ñu def navette en Covid mhm. ñu génnee subvention jox ko ASC yi footballuñu mais pour sensibiliser concours sensibiliser pour ku ci ëpploo sensibiliser ndax bu leen ëpp leen première vague bi. bëri woon na kaa Bentali bëri woon na kaa Bopp bëri woon na kaa Waagu Ñaay amoon na kaa Cité Bissap. Mhm. ñu ni léegi dañuy financer comme subvention annuelle la nañ leen financer pour ñu def sensibilisation. Mhm. ñu woo leen ñun ñëpp ñu def sensibilisation chaque jour ñu dugg benn quartier mu am ay superviseur à l'époque ci lancement bi ñu woo professeur Djibi Diakhaté. Mhm. woo Abdourahmane Diallo. bi nga xamoon ne amoon na lu ko ci xaw a laal mhm. ñu sensibiliser li taxoon ñu gën cee sawar it mhm. sunu kenn umpalewu ko sunu maire feebar bi daloon na ko mhm. nëbbu ko soxnaam it génn na ci àdduna ñëpp xam nañ ko loolu gën a pousser bi ñu xam ni feebar bi am na ñu taxawu ci wàllu boobu sensibiliser pour gën a sensibiliser population bi école yi fu ecole nekk. Mhm. def nañ fa ay lave-mains mhm. yu mag ak yu ndaw jox leen gel jox leen masque def sensibilisation au niveau de la commune wër tuuru commune bépp sunu moyen personnel au niveau de la commune. Mhm. ñu def ko ci ak accompagner ak la ville de Dakar aussi ñëw appuyer ñu ñu def ko. bi loolu weesoo fépp fuy jàkka. fépp fuy juma. def nañ fa ay. ba jumaa murit bi nga xam ni bokkul sunu Masaalikul Jinaan bokkul sunu commune waaye sunu quartier la bokk ñu jël ko yóbbu fa ay lave joxe fa ay gel def fa lépp lu ñu war a def ci jumaa ak jàkkay ñaari tali marché yi de même école yi de même CM yi nga xam ni sax dafa dépendre ci ville de Dakar def nañ ko ñu toog foofu di ko xeex mais aussi di remercier yenn responsable politique yi nga xam ni bokkuñu ci sunu bokkuñu ci ci commune bi la ñu dëkk. Mhm. mais ñi ngi ci pouvoir bi. Mhm. ñu mel ne maître waar. Mhm. bi affaire bi amee dafa bàyyi léppam ñëw ku mel ne Alsane Cissé au conseil. dafa mel ne ku mel ne Abdou Aziz Ndiaye. APR la bokk conseil économique et social environnemental dafa ñëw bokk ak ñun liggéey bi. mu gën a yomb mu gën a yomb ndax boo xoolee feebar bi mu amee Macky Sall. dafa woo xalifa Sall te ay at la nekk ci kaso bi 40 mais xalifa seetul lu ko neex ak li ko naqari dafa dem wuy ji ko. Sonko dafa radicalisé woon dafa seeti wuy si ko. kon képp kuy nekk responsable politique locale bu liy amee danga war a ñëw wuy si. mais boo dawee wala ngay def say politique personnelle. du loo xam ni day jëmale quartier bi kanam wala nga daw génn quartier bi. bàyyi fi nit ñi foog ni feebar bi dalay ñun rek la war a dal ëllëg bu ñu wéree nga ñëw. Mhm. dangay ngay nax sa bopp. mais bu nu xoolee euh, mel ni sensibilisation bi dafay xaw a des wala ñenn ci askan wi dañuy jàpp ni rek ba tey jàngoro ji euh, amul effet noonu te moo ne mi ngi mi ngi ne di faat. noo am na effet mais aussi les autorités bu ñuy jël yenn décision yi. Mhm. nañuy xalaat société bi xam nga période sedd la ñu nekk. Mhm. activité sénégalais yëpp suba si la ba ngoon si. <laughs> moi je pense que nga ni kat dinaa def six heures du matin. Mhm. vingt deux heures. ndax boo xoolee actuellement bu dul Covid bi sax vingt deux heures dootoo gis kenn ci mbedd mi. vingt et moment bi nit ñi di jën di lekk di daw. Mhm. nit ñi di wàcc di ñibbi wala nga wàcc horaire bi nit ñi di wàcc di wàcc liggéey. Mhm. comme ku war a jógee Dakar ñibbi Kër Massar wàcc 16h wala 17h wala yor njaayu boppam. bëgg a tëj mhm. embouteillage bi ñëpp benn direction la ñuy jël. te day metti mhm. loolu mooy pousser nit ñi ay actes yu ndaw la. Mhm. mais yu ñu war a corriger réfléchir ci ak le ministre de l' intérieur. pour arrondir les angles nit ñi respecter ko. mais mais mais gisoon nañ itam fan yi ginnaaw ba nu décréter couvre-feu bi yenn. communes yu bari seen ndaw yi di génn yéen sax ñaari tali am na ñi nga xam ne génnoon nañ fa di manifester ndax yéen itam dem ngeen nemmeeku ñoo ñu dal mën a bokk ci sensibilisation au lieu que ñuy génn di euh, ñaxtu ci couvre-feu bi. non ñun loolu bi mu amee ci saasi. Mhm. la ñuy parce que am nañu possibilité génn dox en tant que adjoint maire wala maire. Mhm. wala élu pour dem benn tali wax ak ñenn ñi dem ñaari tali wax ak ñenn ñi. Mhm. mais loolu lépp autorité bi moo ñu ko mën a gën a mën a dooleel ñun mën nañu wax. ci naka. mën nañu dem wax ak ñoom fekk leen te ñi ngi koy def. Mhm. le maire dafa bàyyi léppam ñëw ni ma ax ah man nañu dem dox xool wax ak nit ñi. Mhm. man ko maire booy dem ban argument mu ne non nañu wax ak ñoom suñu njaboot lañu. wax leen ni lii ñuy def amul enjeu. Mhm. réglewul problème bi. nañu jéem wax ak état bi dinañ jéema waxaat ñu xoolaat heure yi. Mhm. ndax dix neuf heures vingt dix huit heures trente vingt heures ci lay maire yi di jaay cere ñii ci lañ quartier yi léegi précarité bi moo ëpp. Mhm. nit ñi heure boobu la ñuy jënd fonde ñuy jënd cere jënd cere boo xoolee heure koor. Mhm. moment boobu lay nit ñi di daw di daw. aussi boo bëggee ñëw heure boobu nga tëj ko dañ koy xool ñiy nekk commission bi nekk. feebar bi du ñi ma guddi rek lay dox day dox bëccëg. nañu wàññi heure de travail bi par exemple. Mhm. ñu ni au lieu de léegi nit ñi di dugg huit heures nañ dugg sept nit ñi au nañu wàcc seize heures nañu wàcc quinze heures léegi couvre-feu bi ñu def ko vingt deux heures. kenn du ci am lu muy kaas ci suma vision bopp. Mhm. mais loolu lépp ñu it aussi ñu ngi leen di sensibiliser. Mhm. di leen wax li ñu yaakaar ni moo gën a dal li te feebar bi réalité la. da ngeen jàpp ni dangeen leen ci waroon impliqué yéen ñi nga xam ni ay maire yi yéenay xam itam lu ci bari. jafe-jafe yi impliqué mhm. impliqué nañ ci sax ndax bokk nañ ci ndax ñoo jiite. mais waroon nañ cee gën a impliqué wu ndax lu bëri gis nañ ci ay faay mais doo ko mën a wax problème état la. deux jours yi gis nañ ci ay failles yu mag. comme nan comme ñii intervenir duñu ñu war a intervenir sur le terrain. Mhm. te mën na am scandale ëllëg. maanaam gros bras yi ngay wax. voilà gros bras yi ci nekk. Mhm. waruñ cee bokk. da jàpp ni mbiru police la. yëf yi mbiru police la nañu bu ñu amul police nañu génnee militaires yi. gros gis nañ le problème bi am mairie Barthélémy Diaz. Mhm. gros bras bokkul ci administration dañ leen di fay wala ñu accompagner politicien mais waruñoo ñëw ci guddi di jàpp nit wala di intervenir pour nit jekkul ci état bu normal loolu la mhm. ni ki ëllëg euh, projet de loi bi dafay jàll assemblée nationale mhm. dañ ko modifier mhm. ñenn ñi sax jàpp nañ ñi day jox euh, njiitu réew mi pouvar yu gën a bëri euh, lan moo ci sa xalaat ci wàll yu ni mel pouvoiru yàlla rek moo rëy te pouvoir bu fi am tey jeex dama ni lu ñu mën a def def def def Ablaye Wade ëppoon doole Macky Sall fukki junni yoon ëpp ko fit fukki junni yoon mm-hmm. le président Macky Sall mm-hmm. Ablaye Wade lu mu la ñemewul wax ak noo mënti toll ak président àdduna moo mënti toll ak nit ku mën a taxaw ci kanam lim la bëgg a wax te la la ko wax vote bi da ngay sàkku ñu non euh, vote bi dañ koy voté jël du ma sàkku du ma sàkku parce que ñoom majoritaire foofu te li Macky wax la ñuy def. donc seetoon ko gënul woon. moo amuñ bëgguñu ko mooy li indi li indi réaction yi ñu gis ci couvre-feu bi. Mhm. couvre-feu bi dafa bett nit ñi. Mhm. nga choisir ci ñaari dëkk. mel na ñaari dëkk rek a fi am feebar bi amul sens. ok économiquement. Mhm. day étouffer nit ñi te moom moo waxoon nañu vivre avec. moo ko waxoon de. moo xëy xëy ne dindi nañ couvre-feu bi il faut vivre avec xamuñu kañ lay jeex tubaab yi ni deuxième vague commencé waat ñu ni léegi waat couvre fa xëy na bu tubaab yi ubbee ñu ubbi. da jàpp ne nuñ ko gérer dafa xaw a xaw a. dañoo les médecins. gis nga bu ñu suivre woon les médecins ci ni ñu nekkoon. ñoom bu Bousso ak ñoom Seydi. kon du ñu egsiwaat ñun du ñu wax deuxième vague. mais askan bi tam ñu ci pression booboo ëppoon mu suivre leen léegi conséquences yi ñëw. loolu laa jàpp. Mhm. Mhm. mais tey ñu dem ba wàll wi askan wi pour nga gis nit sax takk masque il a ministre de l'intérieur génnee benn arrêté boo xam ne euh, ñuy dugg ci oto yi faaw ñu limiter ko te askan wi itam est-ce que mënuñu woon jouer rôle boobu euh, citoyenneté nekk ci ñoom itam. Euh, Mbemba boo nekkee fii journaliste di wax lu baax di def lu baax dañ la ciy gis. communication bi c'est l'état ñoom ñoo yor image yi ëpp ñi ngi forcer nit ñi di takk masque image day wax le président de la république di def discours def point de presse soit soi-disant di analyser discours am mm-hmm. waxuma bu njabootam toog de mm-hmm. am na ci droit mm-hmm. parce que boo demee États-Unis président yi bu ñuy def yenn kii seen njaboot dañ toog garaawul mais doomam bi toog na sol masque mu image buy jàll. da nga li jàpp loolu joué ci nit ñi xam nga sénégalais révolutionnaire yu ndaw lañu. xale yëpp a am tic ñoom ñëpp ay xool ay internet ak yooyu. ci li ñuy jàngee la ñuy réagir pour ku wax ñu tontu la ci loolu. il faut que ñoom ñi nga xam ni ñooy les autorités étatiques. Mhm. li ñuy woote nañ koy répondre à un niveau supérieur nit ñi di bàyyi xel ci loolu. ok gis nañ itam euh, wax ci beneen côté bi wàllum njàng meek njàngale bi gis nañ ministre bu ñu dénk wàllum enseignement professionnel génnee na communiqué ne télétravail ko mayul moom mooy dikk xool naka la ñu mën a defee di nga xam ne moo jëm ci wàllum njàng moomu euh, télétravail ñu appliqué dafay mel ni la woon rek la ñuy indiwaat. télétravail développé wu ñu sunu école yi ci benn niveau informatique même au niveau de l' état. central. di nga dugg ay ministère wala ay bureau pour ñu am connexion problème la wala nga fekk ci ordinateur bu baax problème la pour ñu wax télétravail ak pour les l'enseignement professionnel mmh. c'est un peu compliqué c'est un peu tollooguñu foofu yooyu ay terme la yu ñuy utiliser rek 88 hmm. la mbokk yi 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 dañuy ñëw nag dugg ci commune bi Mhm. commune bi fan yii yëpp ñu ngi déggal coowal marché bi mhm. nga xam ne nag yëkkati nañ ko uh-huh. wax ñu problème bi nan la demee d'abord balaa ñuy dugg ci fond euh, débat bi euh, balaa maa dugg ci problème mu marché mhm. dama lay jox ay étape pour ñu xam marché kan laa kan moo ko yellool état ko yellool wala commune bee ko yellool wala ministère a ko yellool boo ñëwee acte de en quatre-vingt-seize boobu au niveau de la ville de Dakar. Mhm. moo fi nekkoon ñu ni dañuy dex commune darondissement maa ngi dégg ñuy wax PS daf koo dagg selon les coordinations boobu à l'époque six coordination moo fi nekkoon muy coordination plateau Médina bokkoon ko ak euh, plateau ak Médina mhm. muy ak Gueule Tapée muy première coordination deuxième coordination muy Gueule Tapée Fann Point E mu troisième coordination muy HLM ba Yaraax jàll HLM euh, ba Yaraax jàll ñaari tali mhm. mais Grand Dakar ci deuxième coordination la bokkoon am troisième coordination am quatrième cordination muy Mamadou Diop les quartiers traditionnels mhm. Ngor Yoff Wakaam mhm. Yaraax Yaraax am cinquième coordination am sixième coordination muy parcelle. Mhm. bi ñu ñëwee ba ci découpage bi. Mhm. ñu def découper ko en commune d' ñu def ko seize communes d' arrondissement boobu ki ko découper woon sax à moo nekkoon adjoint maire chargé de l'urbanisme et de l'habitat muy le vieux Assane Diallo mi ngi fii Castor yàlla na yàlla yokk ay atam may ko fanu gudd. Mhm. ak mbakk yu fay mi nekk jëwrin ci reeñu Djiboka ak Doudou Issa ak les administrateurs de du ministère de l'intérieur ñoo defoon proposition ñu dem ci dix-neuf communes d'arrondissement mais commune bi bi ñu koy dem ni marché bu ne dafa am lu ñuy wax marché de quartier ak marché de ville à l'époque ñu ni marché de ville Castor marché de ville la HLM marché de ville la HLM 5 marché de ville la euh, Tilène marché de ville la Sandaga marché de ville ñu ne marché de quartier muy marché Ngelaw marché Mbabas marché Grand Dakar commune bu nekk loolu yaa ko. yaa koy ñu dem ba acte trois ñëw ñu ni commune ñu intégrer les communes en plein exercice. Mhm. ci dévolution patrimoine ñu ni maire Biscuiterie yi yaa moom marché Ngelaw un yaa moom marché Ngelaw deux yaa moom marché Mbabas bi ñu ñëwee ñu xool ñu nekkan feek Doudou Issa yàlla na ko yàlla xaare àjjana mu wax ñu benn proposition nañ ko autoriser mu signer accord ak benn entrepreneur pour defar marché ngelaw ñu vote ko à l'unanimité biñ ko vote xëy na amoon nañu kii ñu voté wul mais à l'unanimité lañ ko mën a jàpp ndax bu ñu doon téeméer téeméer mhm. ñaar ñoo voté mhm. kon à l'unanimité la bien sûr ko defee mhm. ñun ñu ñëw yàlla def mu génn àdduna ñu ñëw ñu fekk dossier bi bi ñu ñëwee gis dossier bi ñu ne kat dossier bi am na lu ñu ci war a changer ndax li ñu jàpp dañuy ñëw ni maire. Mhm. Euh, signé la ak benn entrepreneur maire yi signé ak entrepreneur bi ni ko marché bi yaa ko moom ba ilaa yow mi di ni te marché bi bien commune la. Mhm. ñun ñu ni ko léegi li ñu mën ak yow. maire le maire ni ñu Mouhamed Djibril Wade mhm. xool leen signature bi lépp lu ci jaar yoon ak lu ci jaar yoon ngeen proposé ñu mu am commission comité bu ñu def tripartite ñu ni l'entrepreneur da ngay liggéey marché bi ci condition yi commerçant bu ne dañ lay delloo sa place nombre de mètres carrés mhm. mais booy jaayee dërëm moom genn wàllu dërëm lay jënde booy jaayee dix francs dërëm lay jënde bu nekkoon ci angle da nga koy delloo ci angle mhm. mais dañ la may boo tabaxee ba mu egg ba ñu dugg nga jaay sa cantine da ngay génn marché bi yow pen yi nga moomoon jaay nga ko mais suuf si meeree ko moom ah ñu woo les commerçants devant le préfet mhm. signé nañu yëpp tous les arrêtés pour commencer euh, préfet woo ñu ñu toog autour d'une table préfet ni leen signé naa maire bi signé nañu indil na ma signé naa mhm. accord avalisé naa léegi nag toog leen ngeen waxtaan ñu waxtaan ni ñoom bañuñu ko tabax mais d'accord ñu entrepreneur bi ñoom commerçant yi commerçant yi booboo doon seen premier point ñun leen loolu yéen du yéen ay tànn ku koy tabax la responsabilité c'est la mairie moo koy jël en charge. ñu daw foofu jóge fa ni léegi bala ngeen a tabax wax leen marché bi ñu njëkkoon a tabax. marché bi ñu njëkkoon a tabax du marché. Mhm. benn hangar bu ñu mbëkkoon a tabax ay tablier foofu it ma wax ci foofu du sunu jamono. Mhm. jamonoy Lamine Diallo du jamono Doudou Issa jamono Lamine Diallo ak yenn commerçant ku ñuy wax ndëri. Mhm. ñoo amoon accord ak Ali jàlloo wax ak moom ba tabax ko Ali jàlloo tabax ko en deux mille quinze deux mille cinq. bi mu ko tabaxee deux mille cinq ci suuf wax dëgg yàlla booy waxal yàlla rek te bañ a nga wax lu dul neexul yàlla. Mhm. ci suuf niñ ko tabaxee jekkul jaaduwul ndax boo taxawee fee doo seen kenn. nous on a vu ñu ni ko yow balaa ngaa tabax sa marché fee da ñuy wax nan nga koy reprendre. ci kaw. Mhm. fa la ñuy jaayee jën fa la ñuy jaayee yàpp. mais 2005 ba léegi ngay dóor jën di dóor yàpp di toj yàq te ci suuf tojul la ñu tabax baax na mais lan moo ci bon amul rayon solaire doo gis ki ci suuf ñoom it ñu jël les commerçants jël. nu ñuy defee fu ñuy defee taabalu jaay nga indi fa angaaru ngooñ ñoom ñu seetaan ko les responsables di fa jaay ngooñ ci biir nous le maire moo autorisé ñu tere fa jaay ngooñ ndax bu lakkee marché bay foofu fooy lakk ñu jël ko ku ci nekk sa taabal danga nga koo def baas ba yow doo gis ki ci topp ñu ni loolu lépp du suñu problème am luy suñu problème mhm. na waa ji sangé lale mu am lumière solaire yi fi wan a dugg marché bi di leer sans ñu tàllaam hangar bi di leer sans ñu tàllaam ñoom ñu ni ñëwatuñu wax ak ñun ñu ni ñu seetaan leen ñu jox leen sommation ba ñu commettre benn huissier mhm. jox leen sommation bi ñu leen joxee ñoom jot nañ ko à temps ñoom ñëpp jot nañ ko. Mhm. jot nañ ko après on a ils ont demandé au préfet pour ñu rencontrer ñun ñun ba ñu ñoo toog ak ñoom mais nañu toog ñu recenser waxtaan recenser nañ ba pare mais ñu waxtaan. Mhm. ku ci nekk nga xam li nga moom. bu ñuy delloo ñu toog ñu ni commerçant bi kii moom moom si mètres carrés yi da nga ko koy delloo par force. Mhm. te nii la ko nii lay tabax bi di mel. ñoom ñu ni waaw ñoom ñoom ñoo ñu demandé rencontre bi de ñu toog ba ngoon. Mhm. ba rencontre bi war a am. le responsable nee na benn responsable politique nee na bu ñu ñëw wuy si. dinañ ci ñëw après. waaw non mhm. le responsable politique ni leen du ñu ñëw wuy si. Mhm. le préfet ñëw ñu toog xaar xaar ñëwuñu. ñu nag ñu ngi continuer dérouler. ñu dem contacter France dégage. moi je pense j'ai beaucoup de respect à Guy Marius Sagna. et son ndax ay li ñuy combattre am na dëgg. Mhm. mais fii dañoo passé à côté. ci naka. dama ni. Mhm. man bu may ñëw di défendre nit wala di wax ni dinaa xool les tenants les aboutissements. Mhm. balaa maa dem ci com bu ma demee ci commerçant yi ñu wax ñu sama version. damay ñëw ci maire bi ni leen lii de la ma waa commerçant yi wax lan moo ci seen xalaat. bu fekkee nit ku ku mel ne gii man ndax nee na dootul dugg ci combat maa ko dégg. je le suis mm-hmm. mu ni du ma dugg ci combat bu ma xamul lan la. du ma faral kenn ci ku dul lu dul dëgg. mais ñoom bu ñu ko demee contacter na ñëw laaj ñu. bu ñu ko joxul information yu doy. Mm-hmm. walla ñu bañ koo wuyu. mu comparer li ñuy wax wala dëgg la wala du dëgg. loolu rek laa leen condamné. Mm-hmm. balaa ñoo dem jël position di woote ay point de presse na ñu ñëw laaj wala ñu ñëw affronter ñu ñun ñu xool. ñoom bu fekkee jox nañ leen argument yu valable ñu développé ak ñun après ñu ni ñu kat ah yéen kat nekku leen ci dëgg déglu naa ñii déglu naa ñee. Mhm. mais defuñu loolu. mais teewul ñun ñu def seen point de presse ñu nit ñu wax suñu point de vue. Mhm. dama ni la Mbemba. Mhm. marché Mbabas 17 portes porte entrée la am. 17 bari na de. 17 portes d' entrée. booy yalwaan amoo foo fanaan mbabas ngay dem fanaan fay téeméer. doy booy liggéey jànq amoo foo fanaan marché mbabas ngay dem fay gardien téeméer fanaan. billahi wallahi semaine pa y a de jours benn xale bu jigéen a fa jóge am ñaari doom liir bu xaw a tooy ak ku mu ku muy jàpp muy daw ci biir kuuru maire bi foo amee doom. ana seen waa kër aw ma waa kër foo nekk ni mu ni marché mbabas foo amee doom yi marché mbabas ñun ñoo jël xale bi jëndal ko meew jëndal ko biberon yóbbu ko ñu vacciner ko te ñoom ña nga marché ba waxuñu ci est-ce booy jaay lu ñuy tere mm-hmm. nga laaj police enquête police yaa ngi fekk rapport police yaa ngi si ñiy jaay bon ak ñiy jaay seen bopp foofu la ñuy nekk chaque jour ñu dajji kantinu jàmbur ci problème mu ñeent ba juróomi commerçant yoo xam ni presque ñoom moom côté boobu yëpp li wër marché bi te ñoom ñoo poussé Ali Diallo pour mu tabax foofu bi mu tabaxee foofu ba pare. Mhm. ñu ni ko dooñu laalal ñun ñooy laalal suñu bopp. doy na war di ban dëkk la ñu nekk pour leurs propres intérêts. Mhm. ñun bëgguñu modernisation marché boo xam ne boo demee ay géttu xara fa nekk. tey loo ngeen ko fas yéene tabax tey. dañoo am partenariat bi ma la wax ni mhm. moom lañu ñu ak benn promoteur mhm. il se nomme Ali boo ko waxee tem nga dégg ku la ni da ngay daw ñun fekk nañ ko fi condition yi ñu mën a wax Ali na indi plan bi na indi auto ñu xool lépp ba mu mat mhm. protection civile vala validé na ko am na autorisation xool nañu lépp ñun jox nañ ko accord on va tra commencer le plus rapidement tabax dañuy toj tabax ci kaw dëgg nag ku ci nekk la nga moom ñu delloo la ko. la mairie lan la ci am pour gagner lan la ci am ñoom d'après ñoom nee nañ dañu corrompre un maire boo xam ni ki jiite mairie bi yàlla suturaal na ko kuy may plus de quatre-vingt cent lave-mains la commune. jàkka bu ne nga def fa réservoir jox fa subvention. lu ñu wax nga génne sa segu bopp kooku du xaalis a koy am problème am ñun liñ ko wax liggéey bi na rafet commerçant yi la ñuy défendre ñun marché bi di tëju heure di ubbi heure le président Macky Sall moo ni na mar nañu moderniser mag marché yi mhm. bu leen nit di gëmloo ni ministère du commerce mës ngaa gis ministère du commerce bu tabax marché mais ba tu defal enquête mmh. urbanisme bi ñu tajee marché Sandaga est-ce que ba léegi gis nga ko ñu tabax ko mais marché Grand Yoff ma jóob toj na ko tabax ko marché Gueule Tapée kii tabax Alioune kii nu mu tuddati Ndoye mm-hmm. Ousmane Ndoye mm-hmm. toj na ko di ko tabax ñun ñu war a am ñaari marché bi ma fii mujj ci émission dama la sunu projet yi paar ñett la mm-hmm. pavé garage su waaye Koppe ak alentouru jumaa ji fu ngeen si toll def def nañ terrassement bi ba pare lundi jaa ngi produire produit produit yi pour teg comme niveler pour commencer pose pavé. Mhm. marché Mbabas marché Ngelaw autorisation am génn na dafa amoon blocage marché Mbabas autorisation am génn na day démarrer ñaari entrepreneur yu bokkul la. Mhm. ndax mairie du jël xaalisam di tabax ñoom li ñu bëgg nee na ñu bàyyi leen ñu tabax la ñu waxante woon ak Doudou Issa Niass yàlla na ko yàlla xaare àjjana mooy na leen booleeg benn architecte dans un premier temps. Mhm. mu defal leen plan ñoom ñu fay ko ñoom nee nañ fay nañu mairie bi man leen seen dërëm duggul ci keesu mairie bi yéen a dugaloon seen xaalis ak benn architecte un privé ñu def ko dugalu leen fa sax xawma ma deux millions trois seen diggante la laaj leen ko seen xaalis mhm. mais ñun ñoo bëgg a tabax marché bi mu am harmonie di tëju nekk ci confort mu nekk ci confort mu am ay voies de dégagement nit ñi ñeme marché bi mhm. mais mënuñoo jël ñett ba ñeenti nit kenn ki ci gën a virulent. Mhm. seqoon ak Ali Diallo lu ko neex. Mhm. bëgg ñoo jël otage léegi est-ce que ñoom commerçant yëpp ñoom ñoo opposé wu ci projet bi. noonoo xam nga bi ñuy tabax hangar boobu. Mhm. commerçant yeneen yi ñoo bañoon. ñi ñi moomoon place yooyu. mais ñi moomoon alentour bi ñoo leen ci poussé ñoom ndëri ñoo leen coaché ba ñu génn. damay je pèse mais moo ñoo ci commerçant yi ba ñu génn pour lu Aly jàlloo tabax foofu mhm. nan lay Aly jàlloo di tabaxee benn mbaar 2005 mhm. ba 2000 21 kaasoo ko mhm. waxoo ko defoo ci dara ñu ni dañuy tabax sa wet ngay doog a soulever loolu prétexte la te duñu ci dellu gannaaw te yaa ngi ne sànq euh, benn autorité non du autorité benn politicien waaw benn ba tey soo ko bëggee rek. Oh. politicien moo nekk seen ginnaaw. waaw di euh, bëgg néewal doole projet bi. non mënu koo néewal doole. c'est pas la première fois. Mbemba. Mhm. ñun ñëpp ay sénégalais lañu. bu ñu naxante. ñun yàlla dafa def ni ku ñu xam ci quartier boobu nga ñu xam mhm. muy délégué football muy nawetaan lu ne def nañ ko. amuñu tiitukaay te li ñuy def ci dëgg lañ koy teg dafa am lu njëkkoon am terrain ñaari tali. Mhm. dañ ci doon opposé wu di ci xeex ak ay dawalkatu sareet ak ñeneen ak ñeneen ñu fa nekkoon. Mhm. di am ak problème Sicap le même politicien je le nomme. Mhm. Arona Coumba dem seeti dawalkatu sareet ni bu leen fi jóg. jox leen xaalis wutal leen avocat yàlla suturaal ñu moom mi doon conseiller à l'époque Macky Sall. Mhm. Macky Sall jël terrain bi may ko ñaari tali jaarale ko ci commune bi. Mhm. ni lépp lu fa nekk na jóg. ñuy remercier au passage le président makki sàll ci acte boobu mu def ndax daw nañ ko ci Abdou juuf amuñu ko ñu daw ko ci Ablaye wàdd bi nga xam ni mën nañ ni doomu ñaari tali amuñu ko. Mhm. kii nekk maire di doomu ci Ablaye Wade Macky Sall may ko terrain bi esprit de grandeur la. Mhm. fekk na fi boobu du sunu baay Doudou Issa mhm. mu jox ko ñaari tali. te boobu à l'époque ce politicien moo doon wax gaañi bu leen jóg ba wutal leen avocat. mais coow loolu fay na déggatoo ko bii biñ ne dañuy tabax il est en perte de vitesse ndax gisatul ndax affaire bi du wax kese. affaire bi ay acte la ak nooy comporté woo ak nit ñi mhm. nit ñi seen dignité la ñu am ku ci nekk boo amee jom sa deret dalay xeeñ affaire buur jeex na mhm. le président de la république c'est Macky Sall c'était nii mbaaxaan nii mhm. actuellement Sénégal Macky la fi nekk bu fekkee moom mi nekk conseiller Macky Sall moo ñu mën a mayoon terrain bi à l'époque mu xam ni kon bataayam perdre na ko d'avance bu ñu demee nag bay tabax marché. muy mhm. intérêt commun. ngeen mu nekkaat ci. mu nekkaat mhm. woo commerçant yi ni leen bu leen wuyu di woo les autorités ni leen bu leen. Mhm. bul bul nangu réunion bi. dinaa indi ministre nangam mu tabax dinaa indi il n'est plus ministre conseil. bu leen fàtteen décret bi mujj Macky Sall dafa dàq tous ses conseils et les ministres conseils yaa ngi rappelé wu lool décret bi mu mujjee. bàyyiwu woon fa kenn. ku ñu ñi mu nomewaat waat ñëpp bind nañ leen décret ñëpp dégg ko officiellement gaa ji ñoo tolloo garaat ci mbedd mi de. maanaam da jàpp ni politique rek lañu fa nekk. di def non non du du ah. moom moom boppam la. Mm-hmm. ndax bu ñu fàtte ni bi ñuy dem élection locale. Mm-hmm. on était mm-hmm. parti ak benn ak coalition. taxaw Dakar moo jël paie. ci biir APR. maître waar moo jël deux ci biir APR. Mm-hmm. la Gueye jël trois ak trois conseils ci biir APR bi muy wootee te bokkul APR mouvement la yor boo xam ne ëllëg dafa bëgg wone wane usine la bëgg base moo jël trois ak ñaari conseil waxuma la ci rambit ci biir APR rek laa wax bi muy woote. Mm-hmm. moo ciy ndaare ak ñaari conseil te benn conseil bàyyi na ko bañuma ko na bàyyi heure bi jot. mbas mi am. Mhm. foogoon naa day ñëw jël dooleem ak sunu doole ñu boole ko. jege su leen te moom saa yu xewlee woo ñu maire yónnee délégation ñu wuyu ko saa yu xewlee. Mhm. ñu maire ni diw demal wala nga dem wala ma dem. Okay. mais moom mosuñoo xewle mu ñëw wuy suñu. Mhm. te lu ñu dugg mu opposé wu ci. 88 la 628 84 84 wala 88 628. 85 85 wala 88 628 86 86 comme ni nga ko waxee Biscuiterie yi seen commune yéen a ngi jëmmal seen projet marché yi ñetti marché yi nga waxoon daanaka chantier yi door na pavage yi kon tey mën nañ ni ñaari tali Biscuiterie yi mi ngi soppi aw kanam. Bemba on a fait un an trois mois ci ab ci réunion Mouhamed Djibril ab part jumaa ji ville de Dakar pavé woon. Mhm. pavage dugg ci. dégg naa nag ñu ni du sunu projet même état du Sénégal lu bëri xaalisu bitim réew lay liggéeyee. Mhm. ñun bu ñu bokkee PACASEN éligible ñu jox ñu ñuy liggéey PACASEN ngay woo say nit ni leen di du seen xaalis. du sant yàlla muy avancement commune. ti appelles les gens ni dama leen di woo diine diine bi lan la maire bi li ñuy def du seen yëf. làmp yi ñu taal du seen programme xam naa di daal defar na benn démarche ci ministère de l'éducation nationale mhm. muy projet toilette école à l'école mu indi woon foofu benn mu inauguré ko nitam yi ni moo ko joxe man leen def leen attention c'est ministère mhm. de l'éducation nationale moo ko def douze rek nga lijjanti ko inauguré ko te du sa xaalis ASEMAC nag ki nga xam ne am na financement plus de quatre-vingt-dix-huit millions pour premier coup pavage. Mhm. sàkkale woo ko pexe bàyyiwoo ko mu naax saay nga jaar tous les normes légaux pour lancer marché bi nit gagné ko pour nga def ko boo santul ña ko def. boo demee ba bokk ci programme mu yi ñu xeep ko loolu am ci soixante-neuf points lumineux. Mhm. ñuy xeex lu ko yokk ngay wax du sunu programme. ñin ñi kan la ñu yàpp mhm. il faut qu'il revienne à la raison. xam ni politique bu jotee danga koy def jotagul ñun bëgguñ Macky Sall moom moom calendrier électoral am du ñun bu ko neexoon suba mu ni ëpp ñun duñ ñu ci opposé wu mais bu newul ëpp luñ ci mën moom nag bu bëggee campagne nañu xaar rek sur le terrain. Mm-hmm. yaa ngi koy junj léegi PACASEN bi. Mm-hmm. Euh, éligible ngeen ci euh, tey fan ngeen ci toll. premier financement bi. Mm-hmm. on quatre vingt dix huit millions moom la ñu def ci pavage bi deuxième financement bi pour les écoles dañu ko yéex a jox daaw dañoo bàyyi ba juillet ñu jóg ñoo jox arrêté bi xam nga juillet mënoo ci lancer marché day xat mhm. ñu reporter ko pour ren pour avec cent quinze millions bu ñu amul woon crédibilité amuñu woon visibilité mhm. li ñu def leerul pakaseen du ñu jox loolu am na communes yuy daw ci loolu mënuñu koo am mhm. ci année bi ñu ci daaw ñu am ci cent quinze millions pour les pour la réfection de tous les écoles. Mhm. ñuy xa ñuy xaar liy ñëw pour réfection terrain ngelaw ak wut poste de santé. Mhm. ndax ñun ci fan ci toll tey. non dañuy xaar. Mhm. ci plan piit bi ñu dugal. plan d'investissement triennal bi. pour ñu xaar lan la ñu am chaque année dafa am lu ñu am année bi daaw. école yi la ñu waxoon la ñuy réfectionner. ñu yéex ñu ko indil malgré yéex nañ koo indil ci suñu budget propre tabax nañu réfectionné nañu école ngelaw les toilettes tabax kër gardien mosula am mm-hmm. les ASC mosuñoo jot seen subvention mouvement des femmes mosuñoo jot seen subvention maanaam émergence bi ngeen woote mi ngeen école yi mm-hmm. liñ leen di jox ci fourniture ñoom ñoo ko wax mosuñu koo jot mosuñu koo jot ren benn élève jëndul fourniture kenn fekkuñu ci ñuy wax les politiciens yiy wax. Mhm. seen dërëm appuyé wuñ ko ci mairie bi. xëy na dinañu am dinaa jënd nag bind ci sama tur maye ko loolu c'est élémentaire loolu du dara man mii sax mi nekkul woon maire nekk ab axama muy wëndeelu rek chaque année daan naa jënd nag teg ko sama buntu kër ñaar ba ñett di ko séddale loolu du débat. débat bi mooy nan lay quartier bi di développer. Mhm. ñu génn ci précarité bi ñu nekk ñu génn ci ni ñuy waxee ni ñun ku jóg lu bon fii lañ koy teg loolu blog la. Mhm. mel ni yéen a ngi dàq loolu tey seen commune. non loolu la ñuy dàq ndax loo daan dàqee HLM ci sunu commune lañuy dugg loolu bañ nañ ko barrière la. Mhm. barrière la duñ ko nangatuy on a des projets phares yoo xam ne dañ koy def ci commune bu neexee yàlla ak yonent bi. parce que loolu lañ fi fale ndax ki ñu fal muy le maire soxlawul xaalisu commune bi yàlla teral na ko koo xam ne boo nee xëpp mu bind chèque buñ ne subvention ah tabaski ñëw na mënuñ korite ñëw na mënuñoo jox maire yi jàkka yi wala ki mu jox chèque personnel am pour yóbbu <laughs> kooku bokkul bokkul wuti ci titre boo xam ne nit ñi pour dem feneen non moom na yor clubam na yekk ci maire yi parce que loolu la yàggal def ci koñ bi mm-hmm. ñenn ñi nag tremplin lañ koy def pour wut seen carte d'adresse yokk ko ndax ku taxaw ci tele sénégalais yi di la xool nga ne am nga cinquante deux conseillers mhm. c'est fasil yow ñuy xëccoo état bi woo la ni la ndegam am nga cinquante deux conseillers jàppale suñu waay mënoo réunir deux conseils nañu bàyyi di nax nit ñi ok usine nag mhm. politicien bu nekk jaar nga loo fi indi gaañi dinañ ko lekk ba mu jeex taxaw di la seetaan àndal ak nit ñi ci ngor. Mhm. wane suufeel sa bopp. Mhm. xeeb sa bopp nit ñi naw la man loolu laa am ci côté boobu. 628 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ñu ngi koy wax euh, jiitu réew mi itam àdduna ci muy suppression ville yi yéen euh, commune bu Biscuiterie yi nga bokk itam am nga xalaat ci wàll bi lan la ànd nga ci wala àndoo ci. de un ànduma ci de de question bi ñi ma ko njëkk a laaj dama ni la réponse de Abdoulaye Matar Diop grand serigne de Dakar ancien ministre ki nga xam ne ku muy wax ci administration ak politique ak histoire du Sénégal mën nga dem ci moom jàngi parce que man ci man ci man référence la am na élection yoo xam ni dañu woon doxandeem yi commencé expliquer nit ñi comprendre uñ ko li gën a garaaw doxandéem yee war a ñëw tey pour supprimer Dakar loolu laa ko bëgg a interpeller mhm. Omar Gueye dëkkul Dakar Sangalkam la dëkk moo ñëw ni day tas Dakar ànd ceeg Macky Sall mi dëkk Fatick te neewul damay supprimer ville de Fatick moi je pense que ni booy wax acte trois am na loo ci war a réformer am na man jàppoon naa ni bu intercommunalité bu dëgër ci les commune moo moo gën a war a am Grand Dakar ñaari tali euh, ña Grand Dakar ñaari tali. Mm -hmm. ak HLM. Euh, mhm. war na mën a doon benn commune bu mag. mais tey jii jëlal benn village damay jël exemple rek boo xam ni tur bi daf ma neex Ngayoxem. Mm village Mbagnick moo fa nekk maire. le mhm. ministre Mbagnick Ndiaye. Mhm. ngay nan nga mën a def ba mu am budget cent million est-ce que comprendre nga fi may wax. Mhm. communalisation intégrale ay caaxaan la mënul nekk. parce que ñoom nee nañ moderniser. non moderni non dama ni. moderniser pour moderniser loolu wax la. nga dugg ci commune boo xam ne amul benn ordinateur loolu mooy développement. loolu mooy commune communalisation intégrale. ville de xam nañ lan lay représenter mais ñoom xam nañ ko sax am na ñu ci feebar ville de Dakar leen faj ma am na ci feebar avant Macky Sall di nekk pouvoir ville de Dakar a jël en charge. am na ñoo xam ni ñi ngi fa bokk ci pouvoir bi ville de Dakar a jël seen doom en charge am na ñoo xam ni seen feebar seeni mbokk ville de Dakar la ñu dem mu jël leen en charge c'est des milliards lii dafa dépassé Macky Sall dépassé xalifa Sall luy des la lu war a continuer la Macky dafiy jóge suba après ñu war a retourner waat analia nekk en retard nañu dellu ginnaaw xool ban mois voies moyen la ñu mën a def pour gagner Khalifa moo gën ñuy supprimer ay ville ñi koy xelal ba léegi teguñ ci yoon heureusement y a des hommes valeureux j'ai écouté Ablaye Matar yàlla rek a tax may wax mhm. religieusement man man dama am benn dama ko suivre nekk xale mu doon sama responsable may suivre li muy développé moo tax duma ko mën a pardonner dara parce que dafa amoon ngëm-ngëm bu mu def ci man ma gisoon ni kenn feesul bëtam moom am na yoo xam ni waru ko nangu muy paase léegi bu fekkee dindi nañ ville de Dakar Macky Sall day dindi décret ab sëriñ dakaaru dootul doon ambassadeur day wax sëriñ Plateau <laughs> non damay wax est-ce que day wax sëriñ Plateau keneen ki sant Diagne Pape Ibrahima Diagne xëy na bu dëkkee Sacré-Cœur ñu ni sëriñ Sacré-Cœur il faut que mu delloo Dakar li moom boo xoolee muy grande mosquée muy église bi yooyu yëpp ville de Dakar dafay am chaque année marché yu muy pensé pour ñu rénover ko peinture ko lu xew ci Dakar Touba lu tax bu màggalu Touba jotee du ñu recevoir délégation commune de Biscuiterie Tivaouane du ñu recevoir délégation Biscuiterie délégation ville de Dakar la ñuy recevoir. maanaam moo leen njaboote non sans njaboot bi moo am doole bu ñu yóbbul foofu loo xam ni bi Covid bi ñëwee lu tax jëlu ñu ni cent mille ville de Dakar duñ ko jël cent millions yi cent millions la ville de Dakar joxe ni maa ko participer jeux yi war a am deux mille vingt et un la attribué wuñ ko plateau de attribué wuñ ko Sangalkam de attribué dakaar la. festival mondial de l'eau la xaw ma bi ñu jógee Brésil ñu war ñu koo jox. forum mm-hmm. forum bi. Mm-hmm. dakaar la. pourquoi ñuy tudd ay yenn dëkk yu mag yi Paris Londres nga ni dakaar da nga koy supprimer ban enjeu nga ci am. da ngeen jàpp ni Khalifa Sall la bëgg a rek moo tax. non xalifa Sall. mais yéen élection yi passé ñoom ñoo leen gagné majorité bi fii. ci euh, Dakar ban élection passé. Euh, législative présidentielle bi. Euh, dégg naa la président de la République ni élection yu fi jàll yépp moo ko gagné je regrette. bu mu hmm. fàtte o conseil bi ñu koy def ñoo leen gagné. Mbemba o conseil fan la Macky Sall nekkoon bokkul ci ay élection hmm. mooy bi ñoom Cheikh Gueye nekk. waaw kat dañ leen a gagné. te nee na cité nañu yi fi jaar yépp moo ko gagné dama koy rappeler ni boobu ñoo ko gagné. élection yi lim ñu gagné tëj xalifa. jël Idrissa Seck ndeke bi ngi wax ak moom muy joué moom avant les élections dinañu gagné avant les élections la Idrissa commencé wax ak Macky Sall nit ñi ñoo amul entendement nee na quinze mois maa ngi wax ak Macky quinze mois c'est avant les élections te man xam naa ni bu Idi jëloon position bi mu jël bañ Macky Sall du jël coalition bi oyofal ko noonu coalition daf ko oyofal faalewu leen sax moom rek kay dugg ci oto bi wax parce que xam na ni waxtaan na ba pare looloo tax mu gañe dakaar jàkkaarloo jàkkaarloo rek xalifa génn li tax ñu tëj xalifa boobu ba yëpp ci échéance yi am parce que xam nañ ni expert la en matière électorale te Dakar la juddoo fi la footballé nawe footballul sax fi la arbitré nawetaan fi la jàngalee fi la defee lépp xam na luy dakaar xam na luy élection ñoom nag équation boobu mooy seen problème. Mhm. mais nag yàggatul. affaire bi. Mhm. li tax élection mënula am parce que bu amee suba seen coalition tas. parce que lu tax élection amul nee na opposition. ñoo non non non non c'est pas l'opposition qui dirige. ki yor calendrier électoral bi ki yor carte yi en main c'est seul sàll mooy décider ni suba dinañ am élection kenn du ci teg baat kon lan la ci opposition bi doonee nee na bëgg-bëggam mooy mu. noo mënul ndax bu bëgg-bëggam amoon du ñu nekk di négocier mu ni damay supprimer ville de Dakar. amul léegi lu war a doon seen taxawaay yéen. noo li doon suñu taxawaay seen taxawaay moom ñu opposition bi ñu nekk bloc ñoom nee nañ nekk nañ bloc. Idi ne yóbbaale na sama voix ni nee nga mi ngi ci Macky Sall. Idi sama voix nee na jox na ko Macky Sall mais ay naxaate la dama ni Mbemba bu ñu demee élection locale seen parti toj ndax dangay ñëw dama lay jox exemple demal Kaffrine Ablaye Sow du nekk candidat maire au détriment de Wilane. Wilane seen naataangu la de. waaw mais dañ koy nara lañ doon bañ mooy këpp seen kaw Jean Baptiste. Ndeye Saly Diop du day nekk ci kawam Aliou jël nañu yu ki nekk directeur foire. Keita Saliou Keita teg ko foofu dooleel ko danga foog ni dañuy bàyyi leen maire yi Ousmane Ndoye Cheikh Ba commencé naa yëngu pour Bamba Fall. ah nekkul si yéen. non ma mi ngi ci ñun dégguma fenn fu mu ne dem na. Mm-hmm. buñ ko interprété neneen mi ngi ci ñun il am na calendrier boppam. Mhm. parce que day xalaat nu mu gañewaate mais il est toujours avec nous. Okay. ku ci nekk yaa xam sa nooy tojee sa bopp jina mm mais day calculer ni ëllëg nan lay defaat pour conserver sa mairie. Mm loolu man duma ko ci fekk si keneen du ko ci fekk si moo koy doxal boppam. enjeu la de enjeu la. Mhm. pour mu amaat crédibilité bi mu amoon. loolu bu ko ci kenn mere mais ñun ñëpp nous sommes fiers. nekk ci gannaaw xalifa Ababacar Sall. Mhm. sunu fierté la. Mhm. ndax dignité bi ñu gis ci moom. xalifa mi ngi woon ci liggéeyam. Ah, parce que daa mel ni. non décès bi moom. non non du mhm. décès Pape Babacar mbay yàlla na ko yàlla xaare àjjana. moo taxul mu retourné waat en politique. bu Babacar doo dund Khalifa amul sunu jot. engagement bu mu jëloon la pour Babacar mbay dama fekkee mu wax ma wax. li ma lay wax nii depuis 2004 mu wax ma ko. 2004 mhm. ak tey ñaata at la. temps yooyu nekkul woon Sénégal nit ñi di wax xalifa dafa demoon mais fekk boobu ñaaxoon na Babacar teg ko ci condition yu ñu ànd moom di liggéey ak Aminata Mbengue Ndiaye. bi mu demee ba mu génn àdduna la reveniraat en 2000 presque di étapé ba 2009 mu ñëwaat toog kon ñun ñi ngi ci sunu yoon. fan ngeen jëm gis nañ leen ngeen doon def ay tournée fan yii yëpp mais dese sa Diallo bi mel na ni mu xaw a ralentir affaire bi mu nekkoon seen ñooñ ki xam ni jege woon na loolu xalifa Sall ak euh, ñi nga xam ni moom moo liggéey bu mu ci doon def tey mu ngi mel ni kooku desem bi moom moo ñëw yàq lu bari ci wàll wi. yàlla na ko yàlla xaare àjjana. Mhm. yàlla ko yàlla xaare àjjana te jegal koy bakkaaram. Mhm. tudd nga de valeur dund na ba dee amul wax ju ñaaw buñ ko mën a waxal presse bépp jooyandoo ko parce que valeur yi ñu gis ci moom mhm. ay dit yu ko xamul à travers la télé di ko jooy ndax valeur yi mu nekk ci moom mhm. mais Mbemba lan moo neex ànd ak Tanor mun la député nga député waat nga lan moo neex loolu États-Unis mhm. sa njaboot gaañu ci bato la Joola mhm. nga ñëw di xeex benn principe ba yàlla boole laak tanoor ngeen di ànd yal na leen yàlla xaare àjjana ñoom ñaan ñëpp ngeen di ànd ba nga tanoor def la député nga muy ngay laal xalifa seq ko xalifa dara nga ni ko non principe bi nii la doo ko laal bu jaral na ma ma bàyyi kaay nekkaat député bàyyi tànk yaa ngi na ngi ci xalifa duma ko def ànd ak xalifa. Mhm. fu nekk ñu lay woo fu nekk ñu lay proposé nga ne xalifa la dañ koo tooñ saa yoo waxee télé wax fulla ak fayda am ak ñëpp jàmm. Mhm. gor rek ko mën te looloo réer en politique. politique ñu bëri dañ leen a jàppee ñu ñàkk fayda. Mhm. ñu oyof ndax seen waxi tey ak seen waxi suba duñu méngoo. moo tax ñu xeeb politiciens yu bari yàlla na ñu musal yàlla musal ñu bokk ci xeet googu. Mhm. ñun bi ñuy ànd xalifa ay xale lañu ñu amuñu dara. Mhm. ba léegi amuñu dara. mais ngëm-ngëm moo ñuy téye ci moom. on naa des amis au niveau du pouvoir du xaalis du ànd ànd rek la te xarit yu dëggu nag loo xam ni li may séq ak moom sax séquma ko ku mel ni xalifa Sall mais xalifa laa àndal loolu lu ci nit mën. Mbaa dara politique dafa am ngëm-ngëm. Mhm. du alalu àdduna yi. Mhm. loo muñ nag affaire bi fekk la fi. Mhm. ñun fi ñu jëm moom dafa leer. ah ngeen jëm. préparer les élections locales. te fi ñuy bëgg yóbbu élection locale ak législative ñu ngi leen di xaar xalifa du affaire mairie waaye ku tëgg Sénégal wala Dakar wax ak moom te candidat la par force. bu ñu demee ba verrouillé lépp yàlla génnewaat feneen xalifa kenn du def élection te waxoo ak moom nañ ko saraxa woon en 2014 ni ko bu defal seen liste mu gàññe leen ñun ko kaay ànd ak ñun mu bañ ñu ni ko dañ lay tëj tëj nañ ko mu mu am ngoru toog kaso 40 mois génn nga woo ko mu wuy si la nga xam ni gor nga ko seqal ba léegi waxul wax ju ñaaw walla wax juñ koy xeebee neewul may leen ma deewul baal ma neewul dimbali leen ma mhm. si ma dégg un Souleymane Jules Diop di wax xalifa day waxtaan ak Macky Sall mais sénégalais yi xanaa Souleymane Jules Diop du leen jaaxal nag jaar na fi moo doon wax Macky sàll fii la luyee ku mënul a jiite néeg nuñ koy joxee réew ma ab laay Wade dañu tooñ koo koy wax ci Khalifa Sall kookoo <laughs> taxaw en en 2000 ci buntu directoire du parti mu ni pees bu gañee ma gàddaay maa ngi koy mi ngi wax ak ay Birima Fall ay journaliste maa ngi taxaw maa ngi ko tiim ci fenêtre bi dégguma mu ni bu pees gañee ma gàddaay ñu ne ko lu tax mu ni maay jël ci ñoom information di ko jox ñoom Iba Der ak PDS yal na leen yàlla yal na yàlla xaare àjjana Iba Der am na ma jël escalier ñett ñett poñe ko ci miir bi yàlla def pees ñàkk mu gàddaay pees a gañe de mais ci la gàddaayee ñooñu seen wax duma ko déglu waaw am na solo am na solo daa mel ni li ñu cërale woon ci waxtu daanaka jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo rek maa ngi leen di nuyu di leen remercier mm-hmm. Euh, di rafetlu émission bi nag bëggoon naa waa commune Biscuiterie yi dugg wala waa marché. Mhm. pour ñu gën a wax mu leer. Mhm. ndax li ñuy wax nëbbu ñu ko créé wuñ ko. Mhm. lu ñu gëm-gëm la ay projet la ñu am yu leer. kenn du léser benn commerçant. promoteur bi du fi ñëw def lu ko neex. li muy def ci lu maire d'accord ak ses conseillers. mu leer naññ ñu gis ko ku ci nekk. ci commerçant yi gis seen bopp. Mhm. mu jël li mu am génn ñun ñu yor suñu marché. mais marché bi pour conclure. Mhm. jox nañ leen sommation sommation avertissement la. Mhm. nee nañ ci seen invitation ñu jox nañu sommation expéri na mais sommation avertissement la. mën na ñoo ñëw suba wala gannaaw suba wala gannaawaat. tëjoo leen bunt yi daal. tëjuñ non tëj nañu bunt yi moom. ci ni duñ dañ koy toj. dañ koy toj. loolu moom tëj nañ ci bunt waxtaan tëjuñu ci bunt. merci Mbemba di la sant di la gërëm bu baax. di jox mbokk yi dig technicien bi ok di jox mbokk yi dig daje ba dimanche incha allah rabbi